waaw euh, suñu tànk tey ci Touba ban ñëw naa fi ànd ak sumay compagnons yi ñun waa BCG dañu yàgg dañu décider wa dañu ko yàgg wàcc dañ ko yàgg wàcc mais di ko reporter di ko reporter ba léegi nii gis nañu ne bu ñu continuer di ko reporter du sotti parce que mbas mi d'abord moom moo ñu freiné woon parce que xam ngeen ne dakaar ak Touba bokkoon nañu ci centre yoo xam ne ñoo fëdda mbas bi gënoon a fës alors ñu profiter ci jamono gi ñu nekk nii muy weeru chaban ñu profiter pour ñëw parce que c'est un mois béni aussi ñu profiter pour ñëw d'abord euh, ziare sëriñ bi di suñu xarit sëriñ Mourtada Falilou suñu xarit man suma xarit la yàgg nañu xamante ci campagne bi recevoir nañu plusieurs fois aussi pour euh, ñaan ko mu jottali suñu ngërëm euh, xalif général sëñ Muntaxa moom itam yàgg naa ko xam maa nga xamee Jurbel pour mu ñaanal Sénégal mu ñaanal Sénégal def na ko sax mu ngi koy def mais mu gën ko yokk ñëpp gis nañu di xew ci temps yi bi mu jëlee kàddu gi parce ñu bari dañ doon ne euh, kilifa diine yi nañ jël kàddu gi nañ jël kàddu gi mais moom bi mu jëlee kàddu gi gis nañu lan la affaire bi jur jur na lu rëy ndax bu du loon loolu xëy na waxtu bi du ñu nekk fii di wax ñun man ak yéen du ma nekk fii di wax ak yéen alors euh, je pense que fu mu nekk nii actuellement Sénégal xamul sax intervention sëñ bi lan la jur peut-être un jour dinañ ko xam. peut-être historiens yi ñoo koy indique ñoo koy ñoo koy explicité mais su intervenir loon je crois que du baax mu intervenir nii moo gën li mu def ñu bare war nañ ko mun a def mais moom bu ko defee aussi dafa mel ni kilifa diine yëpp la ko ñoo ko def moo tax ñoom ñëpp aussi maa ngi leen di gërëm di leen sant n'est-ce ci suma tur ci turu président Macky Sall bi nga xam ne envoyé spécial am la Euh, parce que xam naa ne àjjuma euh, def nañu benn réunion wax na fa ay wax yoo xam ne yu am importance xam naa ne war naa ko mën a répéter ensuite pour dañuy jël occasion bi aussi saisir occasion bi gis suñu nemmeeku suñu responsable yi ak suñu militants yi nekk ci zone bi notamment côté Bambey côté Mbacké et cetera.